defal benn opération ci établissement Mansour pour ma def benn wéef mais bi mu duggee daal dafa gis nuyoo gis fekk fa kenn bi mu yërdoo mu gis ndaw si tëdd ci deret ko ah bon mënuma wëy ma ne ko nañ dem ma xool bi ñuy ñëwee ma taxaw ci bunt bi nuyoo asalaamaaleykum asalaamaaleykum après kenn réagirul ma ne kenn nekku fii kenn nekku fii kenn réagirul ci la avancé ñëw ci kees bi yërlu gis malheureusement deret ji mu tëdd ci ci ci kaw deret yi malheureusement xale bu jigéen la boo xam ne bi mu ngi juddu ay 1990 ans elle a 32 ans frêle tuuti donc euh, personne n'a rien compris bi loolu amee ci laa génn taxaw ci bunt bi ensuite tout de suite après j'ai appelé la police. ñu bëri nañ jàpp ne agression la. ah oui agression la d'office ça c'est parce que nit ki mënoo ko fekk ci biir mu tëdd noonu mënta mënta rey boppam ça c'est sûr. xale bu gentil la fi la nekk di liggéey elle fait des opérations et malheureusement moom euh, gis naa ne souvent da daan wàcc moom 18 heures man su ma fi naan def opération damay ñëw avant 18 heures barki dem ñëw naa fi na ma papa wàcc na dire que bi ma jógee jàkka ji aussi di julli bi ma rombee gis naa lumière rek yooyu nee naa sama xel nii rek euh, xale bi tey guddee na mais mënu ma woon soupçonner lool ma continuer ñëw parce que man ñoo taxaloo. ah man kat dama yónni. sama gars yi j'espère que vous man awma ma Antoine Diome tontu ma te moo ne jëwrin la juy liggéey ngir sama kaaraange bu ma Antoine Diome mënta tontu. man xalaatuma sama fukki junni xel xalaatul man sénégalais ma wax président Macky Sall tontu ma egguma ci dayo boobu te moo ne suñuy baat la ñuy dagaan ñëw ñu jox leen ko te li may wax bu leen leeree ne dafa waroo gis-gis ak politiciens yi xool leen jamono ji sénégalais yi li ñuy wax ci toile bi mooy maanaam problème mu insécurité bi ak ñoom seen programme ñoom mooy maanaam liste bi da war a jàll liste bi jàllut diw def na nangam il ne s'intéresse que la politique c'est ce qui les intéresse naka la ñuy def ba gën a pérenniser wu ci pouvoir bi c'est ça qui les intéresse et c'est malheureux pour nous te léegi nga gis ñenn ñoo xam ne ci askan wi la ñu bokk waaye intérêt seeni intérêt moom moo nekk ci ñi nekk ci nguur gi mbaa ñiy wëy politique dañuy ñëw saaga la tifaar la ay saaga ba nga tooy ndax dañu jàpp ne yow xeebu nga xeebu boo xam ne tuuti nga tuuti goo xam ne waroo wax ak seen kilifa te seen kilifa li ko def kilifa yow la c'est ça le paradoxe des politiques ce qui intéresse les Sénégalais ne les intéresse pas aujourd'hui je vais lancer un appel à tous les jeunes du Sénégal je vais pragmatique mbéjum kanam boroom a koy fajal fajal boppam te li raam ci ñàkk bi la jëm gox yeeg gox goxaan yi nga xam ne ay zone à risque la nag jeunes yi fa dëkk dajaloo def ay cellules de veille ut ay mbolde de réplique parce que ñii kafuñu caaxaanuñu suñuy bakkan la ñuy bëgg a jël ñu ut ay moyens de répondre à ces malfrats parce que bu ñu seetaanee wala ñu toog di xaar alkaati yi ci tali bi la ñuy nekk te lii xew ci koñ yi lay xew il faut que ndaw ñi nekk ci biir gox yi jël seen ay responsabilités pour mën a gérer situation bi parce que politique yi taluñ ko xool leen waxuñu ci ñun ñoom ñi ngi wax ci liste yi ndax dina jàll wala du jàll élection yi ndax dina baax wala du baax c'est pas la sécurité de Sénégal et leur priorité et tu vas voir des politiques comme eux ou des gens qui font du larbinisme maanaam ay markat dañuy ñëw ci suuf naan ndangam ndangam saaga saaga saaga say waajur ba nga tooy te yow ñoom feefu ñu nekk yow yaa leen fa teg yow sénégalais bi nga xam ne yaay dund insécurité et c'est très dommage je voudrais j'ai parlé parce que li xew Pikine dafa métti en jigéen ju wasi jigéen ju ëmb ba def juróomi weer ay samba booy fekk ko fa rey ko et ça se répète comme ça chaque jour nga dégg cas bu bees dañuy toog continuer di seetaan noonu prenons nos prenons nos responsabilités s'il vous plaît les gars ñun ñoo si woon dara.